voilà alaikum donc euh, euh, je suis membre euh, de la coalition des acteurs de la musique de depuis depuis lors pour faire artistes reprendre activité donc tout d'abord nous tenir vraiment à remercier le ministre de l'intérieur remercier également le ministre de la culture remercier euh, notre grand frère et artiste et ministre conseiller Youssou Ndour qui nga facilité aussi rencontre vraiment rencontre la rencontre ça s'est passé dans la convivialité vraiment autorité yi ñu nous ñu kàddu ñu waxante ak ñoom waxante leen aussi sur li nga que ne moom pour que nous puissions ñu Nous liggéey ñu am na tamit nous ne que ne euh, dina dina dina parce que euh, quand même depuis une ñuy xaar ñu échanger donc après nous, ils se sont retirés pour pour parler les ministres pour parler donc ils nous ont demandé que nous revenir euh, à Tsuba pour pour à 19h même heure même même place B pour que nous puissions conclure pour la décision qui a été prise pour que artistes yi mën activité ba léegi cité voilà donc ñun li demandé déjà point bi njëkk bi moom mooy que ne dañu leen demandé pour ñu autoriser ñu sitting ñu def sitting autoriser pour ñu def sitting bi c'était pas c'est pas pour euh, euh, def bras de fer c'était juste pour montrer que quand même depuis que le Sénégal est Sénégal mosuñu gis artistes yi taxandoo ensemble nekk benn bloc pour revendiquer seen droits droit wala pour wax pour ñaxtu ci li nga xam que ne moom la ñuy daj ci métier bi ñuy traversé donc lolo ben point bu moo doon point bu njëkk bi deuxième point bi moom mooy que nous ñu dind ñu à ce que ñu euh, ñu euh, annuler euh, arrêter bi nga ne ne que ne moom moo génn ci week-end bi pour téré artistes nous ñu ñu performer ci spec ci lieu de diffusion yi nga xam comme restaurant yi comme hôtel yi ak comme bar yi donc déjà lolo et puis ñu profiter encore ci occasion bi demander à ce que nous nous faire dans un futur euh, prochain

ne euh, Covid bi wàññeeku na donc aujourd'hui depuis euh, mois de mars liggéeyuñu wax nañ que ne aussi njaboot yi mi ngi tas que wax nañ leen que ne entreprise yi ñi ngi tëj que mënatuñu mënatuñu donc euh, je pense que ne ñoom dégg nañu aussi ministre bi wax na que ne carrément quand même dégg na suñu cri du cœur que ñu may leen fii ak suba ñu dellu siwaat comme ça une décision va être donnée pour ñu xam naka la ñuy doxalee ci ci ci ci mais jusqu'à aujourd'hui li nga xam ne ni que ni moom moo nekkoon point de on va pas dire revendication li nga xam ne ni que ni moom la ñu ñëw tey pour demander recommandé ko ba tey ji c'est à l'ordre du jour en attendant que demain ñu xolal naka naka la ñuy euh, euh, nu mu tërati gisante ki et ci ñuy ñaan que ni euh, que ni mu am issue heureuse parce que lool ñun ñep lool lañ ci wut rek pour bëgg liggéey donc bu saafara amee est-ce que ba légui tamit da ngeen di maintenir sit bi am dette wa ñun bu saafara amee parce que ci biir coalition depuis demb on en a discuté ci suñu réunion bi ñu am bu nu amee saafara eh bien entendu que ne dañuy lever ki bi nu mu tërati sitting in bi boba duñ ko duñ ko def maintenant bu aussi ñaan lan leen na ne que ni même bu fekké né jox ngeen leen ñu sax autorisation pour ñu commencer pour ñu liggéey mën ngeen ñu bayyi rek ñu def sitting bi parce que sitting bi dañ ko bëgg def ngir wane euh, askan wi que né artistes aussi ni lañu ni lañu toggé ci sen secteur voilà donc euh, mais su fekkee ne euh, nangulun ñu ko te ubbil ñu ubbil ñu saal ñu liggéey ñun tamit dañuy jël rek. kon manam ba ni amul ben point bo xamante nit mën nañ japp né déggo amagum na ci. non non du affaire u déggoo c'est-à-dire ay échange ñom ñoo am échange ñom dañ ñu de nous introduire expliquer ce qui li euh, arrêté vraiment ils ont tenu à expliquer que y affaire une affaire stigmatisation Ils rek cibler le secteur de la culture pour def nek que ne doo donc c'est parce que euh, maladie bi de fi ñu wax affaire deuxième vague mom motax donc aujourd'hui euh, je pense que le eh, discours bi très la nek quoi discours bi fu mu Nous, moom que né ñun li ñu bëgg rek mom moy liggéey bëgg et je pense que né état bi dégg nañu et euh, je pense que vraiment réunion bu bu mmh. baaxa baaxa baax la am réunion est xamné que né entre entre doomi réew